nu ngi jëm ci làmb ju rëy diggante parcelle ak jàmm gën. premier octobre à l'arène nationale. mbokk yi Kajoor production la ñu ci àndal ak Ibrahima Diop. ouverture de saison de feu. ñaari xale yu lamb yaakaar lool la Ibrahima Diop Kajoor production boole. waa Lansar. jàmm gën Sika Mbaw Fora. préparé leen ndax Mama Lamine a ngi ñëw. mu war a jàkkaarloo nag ak Mboor Mboor. waa Cambérène daal di ñëw waa parcelle 1 ba 26 kenn du des. gunge seen doom góor a sopp. waaye mbokk yi Kajoor production yemuñu foofu du xam ngeen gaaroo gaar dina Sàllu Sathies bu ndaw jàkkaarloo fa ak Ama bu Mbewaan Jules Diène fa ak Modou Vanda ak yeneen six combats yu neex ci bésu premier octobre mbokk yi ji nag en live pay per lay doon ci seen affiche point du xam ngeen seen affiche min bu leeree ñoom la bu gaawee ñoom la bu rafetee ñoom ciy Kajoor production nee na daal dër di parcelle jàmm gën bu jeex. macha allah diggante ma nga xew Jóob Yékini jàmm moo ci am. yaakaar naa comme war nañu mën a xaar sa combat bi Yaxya Jóob Yékini indi la. waaw war na mën a nekkañ. Mhm. waaw war na mën a nekk. Uh-huh. Mhm. mais nga raar ci làmb ñëpp di xaar retour Ablaye Ndiaye mu ñëw jël ki nga xamante ni mooy Paul Paul Maurice xaw ma. Mm-hmm. wala nga jël Maurice. Maurice waaw Maurice nga jël. est-ce que Ablaye Ndiaye retour am waruloon xool ci li gën a yomb mu ñëw jël Maurice Maurice ku ko xam xam ko ci xeex. Mm-hmm. Maurice ku ko xam xam ni day bëre. Mm-hmm. Ablaye Ndiaye ñëw jël Maurice la moo tax suwaa nekk Maurice. mais qu'est-ce tey Maurice. moom mbër la comme yeneen mbëri rek parce que Maurice man ñu ma war a bële ji ñoo ñoo ëpp doole Maurice ñoo koy dàq xeex yi xam nga tamit comme su ma jëlee morise nekk loo xam ne ne ay risque la wala dara làmb la. làmb la waaw. làmb la. Mhm. mais sa diggante Gris nga ñëw ñëpp ne Ablaye Ndiaye Gris ab Ablaye Ndiaye Gris ab Ablaye njaay ñëw ñàkk kombaa boobu yaakaar naa benn defet boobu nga amagum ci làmb. Mhm. défaite boobu ba nga ko amee lan la def. non métti na mais xama ñaari ndaw yi doon dem la uh-huh. waaw di ko nuyuwaale moom Gris 2 uh-huh. waaw di ko nuyuwaale bu baax uh-huh. xam nga comme ñaari ndaw la woon parce que ñaari ndaw moom bu ñuy jóg foog kenn ki taxaw kenn ki dem te yàlla daa def suñu borom moom la mayoon ndam xam tamit loolu dañ koy nangu rek parce que suñu borom mooy maye tey su yàlla tuddoon ne man maay daan nit mënu si dara waaw suñu borom moom la may ndam xam acca ana père père Robert. père mu ngi fa mu ngi si jàmm waaw mu ngi fa di bëgg cere. Ah? ak laax rek. ndax wax ni mu ngi ci wàccaay instant moom yaakaar naa mu ngi ci wàccaay. waaw waaw moom mu ngi moom moom chaque jour mu ngi suñu ginnaaw quoi. Mm-hmm. mais ñu gis tey nga ñëw ci face to face bi rango sa sër. sër mu doon waaw c'est normal ñu rangoo séer parce que ñun ñi ay ay séeréer lañ ñun suñu cosaan lañ xam. Uh-huh. waaw te boobaa bés ba la cosaan yi di gën a feeñ sax. incha allah incha allah waaw. ay te laa leen mën a xaar sa digganteeg Maurice yaakaar naa ci luy baax lay doon du am roq bu set. ah waaw bëre dóor de lañ wax te bëre dóor moom foog naa bëri waaw xam nga suñu nee événement moom am na weqante am na la mm-hmm. mais lii bëre dóor mm-hmm. suñu nee bëre dóor moom. jeexal jeexal na wax bi laa mën a wax. mais ñëpp nam Ablaye Ndiaye bu ñëwaatee day perte repère ndax gëj gi mu gëj ci làmb. non ñun ay ay ay mbër lañ dañoo yàgg si làmb man maa ngi doon mbapat. maa ngi doon mbapat arène nationale. non non. bëree góor. bi première journée arène waaw waaw. si diis na de. waaw mais loolu garaawul ah. loolu garaawul ñun mbabatkat moom boo koy wax ay waxu suuf dala ay retaan nga koy def. Ah. parce que fee ne Adrien Senghor gis nga ko daa fees delek suuf da mm-hmm. waaw macha moom mbër buy moom boo ko waxee waxu suuf da retaan nga koy def sax. Mm-hmm. Mm, parce que ñoom mun nañ bëree suuf. Mm-hmm. suuf moom mun nañ ko bëree. macha allah sa combat jafe woon Assane Ndiaye ñëw décroché ko ak waa Bawol production lan ngay wax le promoteur Assane Ndiaye. waaw Assane di ko wax ne si kaw si kanam rek parce que Assane moom ni ngay gis nii moom moom dafa xam làmb te day doxal làmb. waaw xam nga di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal avancement yéen it di leen di ñaanal avancement li ngeen yor nii mu gën a yokk parce que yéen a ngi koy def yéen a ngi def seen liggéey daal waaw. macha kontaan nañ ci yow kàddu yi. kàddu yi mu ñu waa xam nga di gërëm Mbagnick Paul Mamadi xam nga di gërëm sama mag Mamadi di leen gërëm ñoom ñëpp ak famille bi xam nga tamit di leen di jaale maire bi comme lu may wax sànq rek parce que maire bi moom sosoon na si ñun surtout sama genre yi. parce que tey jii rek am na lu mu def si man su ma doon génn di dem dina jël kaasu ndox wax lu muy jox jox ma man naan dem xam nga tey ba ma demee ba war a génne nii rek gisuma. war a nekk sa première sortie boo xamante ne daa xaw a daa xaw a daw moo tax ba ma ñëwee après xam nga am na benn yaa un moment sax sama xel mu ngi nekk ci moom mais xam nga dañuy gëm yàlla tamit di xam ne ne moom mooy dogal quoi. yan yan affinité ngeen amoon yéen ñaar. non loolu moom loolu moom boo buggee dégg-dégg maire moom nu ngay gis nii. yàlla daa daf ma natoo daf ma ko natoo man xaw ma kenn man xaw ma kenn maire bi rek laa xam bañ na ko ba su ma demoon du nelaw bilaay walaay day toog xaar ba mu ñëw ba mu xam ne ne ñëw naa ba reer ba pare muy soog a tëdd tëddi xam ñoom maire séeréer cosaan yi lañ xam. xanaa yaay caat. waaw maay caat. caat dafa neex. caat maay caat bu góor waaw. waaw maay caat bu góor waaw. koy ñaanal yàlla yërëm ko xaare ko aljanna. foofu mu tëdd gënal ko fii mu jóge mhm. njaboot yàlla teg ci loxo ndax suñu yaay la ñun ñëpp. yaakaar naa yaay moom fekk ñàqoo ko doo xam li nga xamante ni mooy li ci ñàq yaay. Hmm. mu nekk loo xamante ni lu diis la ñu lay masaw di la ko jaale bu baax a baax a baax di ko jaale sa mbokk yëpp di la wax rek euh, nga tàggoo. waaw xam nga tamit lu nga wax loolu lu rafet la maa ngi la ciy sant di la gërëm xam nga comme nag suñu borom moom paa bi lañ fi bàyyil. nañ nañ nañ nañ des ak paa bi rek toppatoo ko parce que yàlla moom bu la bu bu bu nangoo ci yow dara rek. bàyyee ko boppam xam nga moom mooy maye mooy def lépp su ko neexoon tey maire bi du dem mais comme suñu borom moom dara tëwu ko dañuy sant di ko gërëm di ko gën a santaat di ko gërëm di ko gën a santaat di ko gërëm parce que yàlla moom kenn la waaw yàlla moom kenn la xam nga tamit di gërëm waa Joal Fadiouth yëpp yëpp yëpp yëpp Petite Côte beeg ñëpp parce que xam nga bugguma tamit di lim juum uh-huh. parce que laay bu génnee ñëppay génn mm-hmm. laay bu génnee ñëppay génn muy île bi muy village yeeg ñëpp xam di wax ne tamit lii benn présentation la woon rek. waaw parce que képp ku si ku ma si ku ma si war a citer tamit te déggoo ko xamal na ne kii ñu ngi ñëw. Euh, des na yeneen jotaay. waaw parce que temps bi mayuñu ko quoi. waaw di wax ne tamit gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp waaw. jaajëf jaajëf frère. ayca jërë ngeen jëf mbokk yi lii lañ leen indiloon ñun ak Ablaye Ndiaye yaakaar naa ne namoon ngeen ko waaye dégg ngeen ko ci li nga xamante ci la nekkoon ak ci li nga xamante ni ci la jëm. mooy nuyu bu baax Serigne Samba Ndour borom di ko souhaiter joyeux anniversaire borom la 28 di ko wax dundal loo dund doyal le jeune Mara di leen jox dig daje beneen yoon di gërëm sama caméraman Badou Faye. nu ngi yëm ci làmb ju rëy diggante parcelle. ak jàmm premier octobre à l'arène nationale mbokk yi Kajoor production la ñu ci àndal ak Ibrahima Diop ouverture de saison de feu ñaari xale yu lamb yaakaar lool la Ibrahima Diop Kajoor production boole waa Lansar jàmm gën Sikap Mbao Fora préparé leen ndax Mama Lamine a ngi ñëw mu war a jàkkaarloo nag ak mboor Mbowar waa Cambérène daal di ñëw waa parcelle 1 ba 26 kenn du des gunge seen doom góor a sopp waaye mbokk yi Kajoor production yemuñu foofu xam ngeen gaaroo gaar dina fa jàkkaarloo Zallo Sa Thiès bu ndaw jàkkaarloo fa ak Ama bu Mbewaan Jules Diène jàkkaarloo fa ak Modou Vanda ak yenn six combats yu neex ci bésu premier octobre mbokk yi ji nag en live pay per lay doon ci seen affiche point com du xam ngeen seen affiche min ngeen bu leeree ñoom la bu gaawee ñoom la bu rafetee ñoom cëy Kajoor Production nee na daal dër bi parcelle jàmm gën bu jeex